jërë ngeen jëf mbokk internet Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fas yéene ñëwaat ci kaw ki nga xamante ni moom mooy Lac de Guiers 2 ginnaaw bi ñu ko convoqué fële ca commissariat central bu waaye moom nag tey jii amoon na retour de parquet naam sax ki nga xamante ni moom mooy footballeur bu mag boobu di wuyoo ci turu Sadio Mané jotoon na def médiation pénale ngir rek ñu mën a fay li nga xamante ne nii moom lañu ko toppee waaye dafa mel ni c'est trop tard nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon la partie plaignante dafa am yeneen personne yoo xamante ne ñu ngi tollu ci diis ñoom ñoo rajouté waat ci liste bi ba tax na daal dinañu koy placé sous mandat de dépôt nag ni ki tey jii moom mi nga xamante ni moom mooy Lac de nekk chef de file de l'écurie Waalo fas yéene na passé première nuit am fële nga xamante ni nag moom mooy prison bu rëbës naam sax ñu bëri ñu ngi laam-laamee ki nga xamante ni moom mooy Lac de Guiers nan la mbir yi mën a yegsee fi mu yegg si ginnaaw ba nga xamante ni bokk na ci lutteurs yi gën a mag fii ci Sénégal waaye aussi nekkoon na ko xamante ni bu ñu xoolee ci wàllum comportement sax ñu bëri duñu ko foogee que ni war na mën a dugg ci wàllum escroquerie naam sax nekkul bii mooy benn yoon bi ñu ko ciy tudd waaye mbir mi dafa gën a sérieux ba ñu traduire ko fa li nga xamante ni moom mooy euh, ca kanamu yoon mu mel ni nag mandat de bi euh, bu jàllee ñu ngi xaaran rek ba xam juge bi dina ko woo bu ko defee rek xaalis bi nga xamante ni nii Sadio Mané fas yéene na ko ko fayal euh, ñu ngi xaar plaignant yi ba xam dinañ ko nangu ngir mbir mi ñu mun ko tegaat ci suuf ñu bëri nag di laam ki nga xamante ni moom mooy Lac ko mujjee woon a pour mu tëgg ko lu tax jëlu ko amande na sax bu ko jëloon coow li nga xamante ni dugg na ci dina ko mun a fay ngir mu mën a jël cachet boobu nga xamante ni proposé woon nañ ko ko te 5 millions daal di ciy manqué mu mel ni rek diggante ki nga xamante ni nii moom mooy lag de ak parti plaignant yooyu noonu ñu ngi xaarante rek fan la wànnante di mujjee ki gëtam fi léegi ay. lu yëg léeg kaay bi xëyee ma daal di leen ko yéeral Ousmane Sonko di ki démb day daanaka wax na la mu xam jëmale ko si inondation bi Sud du Quotidien ñu xamal ni gis nga plan décennal si gestion inondation bi gis nga Ousmane Sonko daal nay santaane nag ngir ñu amal ab audit boo xam ni jëmale ko si 717 milliards de francs CFA yi nga xam ni dama ne gouvernement bi fi nekkoon di gouvernement bu Macky Sall ñoo ne dugal nañ ko si su xeexum mbënd gu métti gi de Sud du Quotidien cause ci conseil des bi yi si la yëkkatee ay kàddoom ne gis nga mbënd gu métti gii si jam ñaajo ak si ndakaaru dama ne faa mu dakk te gis nga lam si yi nga xam ni état bi ñoo wax ne ñoom dañ koo investir si inondation te mun tey de dara du si dëgg ndaxte koppar gu toll noo ne te jafe-jafe inondation tey ji mu nga mel ni tulleeg màlle de Ousmane Sonko daal nay wax ne gis nga jàpp naa ne daal lu toll si ñaar fukk jéego ak ñaar dama ne 22 gis nga gouvernement bi bés bu si jubloo dëgg dëgg dëgg mën na fee rek question inondation ba a la mënd mi si boppam moo fiy jaaree tab bi géej ba kenn dootu ko gis nga coowala inondation si atum 2012 jàpp si atum 2022 vox populi di ñu xamal nii gis nga Ousmane Sonko premier ministre mën la la mu wax leer na la nee na dinañu si na mu gën a xóotee nag mën na la coowalu 717 milliards yi nga xam nii gaa ñi dañoo wax ne dugal nañ ko si inondation de ak chantier yoo xam nii mën la gaa ñi nee dañ ko a li nga xam ne moom moo di mbënd gu métti gii gis nga coow wala mbënd gii dama dina jeex de ndaxte yenn yi caaxaan kese la gis nga koppar gu toll noo neen ana nan lañ ko mën a dugalee si mbënd gii te moom tey de mbënd gaa ngi gën a yokku de kon koy lii ay caaxaan kese la kon koy coow wala inondation fii si réew mu Sénégal bés bi la jour daana say dikk rek ne ko gis nga li ko démb sa conseil interministériel bii ma ne la moom Ousmane Sonko wax na laa sax xam ne ndaxte 717 milliards plan décennal bi nga xam ni mën a tegoon nañ ko fi de ngir xeex mbënd mi te mbënd mi France ba tey kenn mënta comprendre bés bi le di des ba tey mën a la si digganteeg Ousmane Sonko ak Jean Mélenchon dama ne gis nga ni ki démb nag sa duwaan université Cheikh Anta Diop de Dakar ci UCAD Ousmane Sonko man la ak Jean Mélenchon dama na gis nga jikki démb gaa ñi d'accord ñu ci waxtaan de ndaxte coowal contre nature la gaa ñi doon waxtaanee de waaye dama gis nga moom Jean Mélenchon si boppam moo taxaw ne man daal góor jigéen laa jàppale nu ñu mën a def daganal sëy entre góor a góor astafurla maar day taal jéggi ma si kàddu gi dama ne man Jean Mélenchon dama ne maa de sama loxo kaw waaye gis nga Ousmane Sonko na ko sam waaj d'accord ma si de d'accord ma si mbirum góor jigéen de ne ko gis nga li may wax nii waxuma ko en tant que premier ministre de déedéet Ousmane Sonko en tant que chef de parti Pastef les patriotes mooy wax ak yow Emmanuel Macron de kon koy j'assume lu ma si góobe naa ko gar rek ndax taxawaay ak doxalin bi nga xam nii may Ousmane Sonko moo wax ne Emmanuel Macron jiiti réew mu France amaloon na ko euh, si anam gi ñu doon noot ak répression fii si réew mu Sénégal mën na la loxo Emmanuel Macron génnu si te moom Ousmane Sonko nee na gis nga répression yooyu yooyee moom victime la si woon de si atum 2023 l'observateur dikk ñun nag si waa coalition Diomaye président ak ci nomination yi nga xam ni ma ne la tout récemment gars yi def nañ ko nag la gis nga anam gi nga xam ne noonu la gis ay coup politique la l'observateur yi ñu xamal nii ma la gis nga yenn yii la si boppam ñoo primé seen président la ñu bokk waaye l'observateur yi ñu xamal nii gis nga lii ñuy gis ni boo mooy coalition yeew yeewu askan wi nag moo fa nar a jaaree nax saay ba faaw mën na la waa coalition yeewu askan wi ñan sa fal dama ne taxu koo bari noonu de te loolee boo moytuwul coalition yeewu askan wi si tas la jëm boo moytuwulee nag du samay kaddu dama ne l'observateur moo ko xamle ñu jeexalee ko ba tey deseni si journal bi l'observateur ab coow la am sa tribunal bu ndakaaru ndiki démb waaye waaye dama ne la may ma nopp ma nettali leen rek l'observateur moo ko bind ab benn femme de ménage déglu ma bu baax moo daal di sàcc nag li nga xam ni moom moo di fukki millions ak ñaar douze millions te xaalisu patron am la de yow ngay daal di daane sa doole si ab kër daal di sàcc alal ju toll noonu ne te ki nga ko sàcc mun tey de par mois moo lay fay waaye dama ne gis nga bañ taxawee ni ki démb sa diwaan tribunal bu ndakaaru femme bi avoué na ne moo ko de te gis nga xam nga fan la ñu mujjee moom ndaw si ab oto fay de sàcc douze millions ma ne la fay ab oto yaa koy yëg l'observateur ñu xamal nii beneen tooxi doona moo am de si mbirum foo bi dama ne gis nga douane bu Sénégal dama ne ndiki démb daal nay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 sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps